Lebu Njaay bayu mu di Moustapha Fall maami Seex Fall bayu góor gànjar ak yoon laa ilaaha illallah sëriñ Bamba mooy bàyyi basat baara maami dan ak seex ga jàggoon ca gànnaar rendi Iblis ca Gabon laa ilaaha illallah sëriñ Bamba moo doroxaloon nasaraan bi raamloo doomi soxna yi laa ilaaha illallah këri sëriñ ñëpp fa weddi yàlla ak muhammad la ilaha illallah lekk fa yàppi xaj naan fa sàngara fa la ilaha illallah sóoru fa la ilaha la ilaha illallah la Serigne Bamba mooy bàyyi ba set baara maami den ak Seex Mbàkke ca gànnaar ren di Iblis la ilaha illallah la ilaha illallah sëriñ Bamba moo toroxaloon nasaraan bi raamloo doomi soxna yi keroog biro ba ca ndar ak bëri woon yi sëriñ ñëpp fa weddi yàlla ak muhammada lekk fa yàpp xaj naan fa sàngara ba mu des bàyyi sëriñ saaliw sëriñ Bamba mooy yàllay jaam ñu ku bañ moo la moom ku bëgg mooy sa borom murit jëf ca ba ngay mën daw ca ba ngay ami tànk gaal ak bàmmaleem loo fa deful doo ko la ilaha illallah murit Musaa kallaamu leexi nee na mi ngi dellu tuub di woy illaahi fi samaani dellu i tub bakkaari fi niswaani fa laa ilaaha illallah surufal laa ilaaha laa ilaaha illallah Cheikh Ibra ngir bëgg a ñaari ji saw sàkkoor fukk juróom ñaar laa ko fas ci weeru koor لا إله إلا الله لا te bu ñu am saaritu déeréer ni mbaa ñu xam néeréer ni naari mboolem fu Seex Bamba xawoon ci réew mi ci jéeri ji laay bëgg wax waa réew mi gannaaw bu mu ñibbisee ba jaar Daaru ba dem ba Jolof ñëw Jurbel njaareem na daam danaa ci xam le luy njëriñ su boobaa ndax Bamba noonu na samay mbir ci dunya lu mujj ñëw xëppalewee ca mbóot ya gaaw ba Bamba gontee daaru laa ilaha illallah Cheikh Bamba gonte na fa daaru jëm ndar ànd ak mbaaxaan di ko woon a dëddër fukk ak gaaw ci weeru tamxarat la fa gontee saaw laa ilaha illallah laa ilaha illallah Cheikh Ibrahima ñi kenn nga lamb fal bam ridina jam ñi yaay seen bam ridina ku fi réer yaa ko ginde nee keroog rocc na mbuuti daaru ya dem ci suru ndam ak fare ya dalaa leen wax li mu taxaw ci at yi ngeen xam ne Cheikh Bamba du moroomam naar yi ca xaama jee sa sin la dem Jolof Njaay am fa juróomi at du sàmbalaw ba Njaay daaru Daaru Xudoos la ilaha illa la la ilaha illa la quatorze la sanc haamata sasi fi daaru rahman la dëkkoon fa tam sasi du weeru tam xarit di haama woon sasi la Seex Bamba ñëw njurbel tubaab yooyu lës lësi rango masiri la mu waxoon ca way wa Seex Bamba la mu wax foofu doy na xaroo fukki xat ak juróom ak ñetti fan la xam fa njaarem man Bamba doy na maa yéem la ilaha illallah faal danaa leen wax xarbaax yi xew ci bés bii ci yett jëri ji lëf ndax nga fonk bés bii bàyyi njàmme ne déglul ma wax la la waral mbaaxaan ja gannaaw dogal ba ca xaddim ngir waaja auzu billahi mina seytaane yal nañu yàlla féewaleeg mbaaxaan yi la ma wax la bis ba Seex Bamba ñibbisee fa woon Konaakiri ca xaama hab sa suy fukki fan di weeru këri wala gonte kër ma ndumbe xandat fere ya war ngelamul magam ja mbakke maane ci dugg guddi ga la ñuy jaar fanaani Daaru kër maam Cheikh Anta Mbakke borom gaawaan Daaru fa borom gaawaan yi réew mépp ñëw mu rit xaxub tiijaan ñu am fa ay ngan ngan nga roon a tabaski ngan nga woyoon naa ko ci Sidi Mbàkke loolaa tax marché yëpp borom gaawaan yi moo ko fàttali melew naa ne fukki nag ak juróom ci bis bu nekk xànd ak gëléem ak fukki bay lay sàkk ba muy ay ak bis maam seex Anta tey ma ren di nit kuy taxaw joxtan ya ndax ñu màndi Cheikh Ahmadou Bamba daam na ko jaaraama daam jaaraama daam mu jàpp ab jaam jébbal magam sëriñ Mamor borom saam la ilaha illallah fukk ak juróom nag ci weeru kori wa la gonte kër Mandumbe ànd ak fare ya war ngelemul magam ja Mbàkke maane ci diggu guddi ga la jaar fanaane Daaru daaru salaam fa kër borom gaawaani réew mépp ñëw murit akub tiijaan ñu am fa ay ngan ngan nga raw na tabaski ngan nga woyoon naa ko ci siidil mbàkke loole yëral ma marché ab borom gaawaani loolaa ko fàttali melew jinaane fukki nag ak juróom ci bis bu nekk ànd ak gëlëm ak fukki balee sàkk yóbbu ma ci géej gi ma mos sa tuuti ñu dal di joxe micro bi Moussa xaadimul xadimi li man hawa takkadul mun xadimi yow ma xuróoji seexunal xadimi tun daareedu tunu mbakke baari bismi xaalihil baraya baari xarajtu yow ma sappi samiri hasar li xidmatil muxtar fii sëxri safar day laay la lay faal taarix ba mooy téeméer ak fukki su ngeen ma dégloo tey ma dellu yeete ndax ñuy nelaw seen xel yi dellu seete ku réere mbir day laaju xam lu mu xamul laaj la ngiréem ki leen amal lu ngeen amul gumba yi njàccaar laa ngi tee ngeen ne wedem man ko xamul laajul ko xam kooko xaw maw layam la ilaha illallah sëriñ Moussa Ka ne ku toppatul yàlla na topp waayam mbaalu ko dal bu mu ko xul falaayam nañ jéem a topp yàlla te toppi ndigalam te jéem daw seytaane xàmmee mbugalam te jéem a roy roylu rijaalullaahi te jéem a roylu kullu jannillaahi la ilaha illallah fal la ilaha